nan lay def ba bokk ci élection présidentielle 2024 loolee mooy laaj bi nan la ko Khalifa Ababacar Sall di lijjante te ngir mu bokk si il faut ñu beneen bi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall moom la jàkkaarloo la nan lay def ba contrer troisième candidature bi nga xam ne ñooñu Macky Sall dañu ko bëgg ñaari mbir yi nan la ko Khalifa di lijjante fexe ba Macky Sall du bokk ci élection yi moom Khalifa Ababacar Sall mu bokk ci ci lépp réew te nag la nga xam ne moo ca njëkk mooy respecté li nga xam ne mooy constitution bi yéen kaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa mbokkum socialiste ma di jeemati fàll daat nay wax ne lu jëm ci wàllum retrouvailles famille socialiste jamono ji ñoo ngi koy waxtaanee ci biir parti bi yéen kaay gi di évidence nee na jamais deux ans fi ñu jaar ak mooma jaar fa ak Karim Wade ndax du ñu fa jaar ak Ousmane Sonko journal bi nee na en tout cas li amba de nga xam ne ñoo yore nguur gi dañoo bëgg a faagaagal Ousmane Sonko waaye li ñuy wax rek mooy jamais deux cent trois journal bi di l'info am na nag ñenn ñoo xam ne ñoo ngi ci biir Pastef ci ay gox yu bari yu wuute yoo xam ne jamono ji takku nañ ba dëgër ngir nag daal di tubayul Ousmane Sonko ngir nag daal di kay a yéene kaay gi ne na ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef sa diwaanu Thiès ñoom wax nañu lu leer waaye tamit ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef dëkk ca diwaanu Saint-Louis ñoom tim wax nañu lu leer waaye tamit ñi nga xam ne ñoo dëkk Pastef sa diwaanu Bignona ñoom tim wax nañu lu leer waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ànd ak Pastef te nekk ca diwaanu Paris la France ñoom tim wax nañu lu leer nee nañu nag opération wër ndomba duñu benn yoon Ousmane Sonko ñu koy faagagal ak di ko jéem a tere ngir mu bokk ci élection présidentielle ñoom nag nee nañu ba ñu si nopp ñu saañum ngeer yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye nee atum 2023 mi la moo xam ne at mu nar a metti la te nag musiba ma bu kumba war nañu ko moytu ci réew mi yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora nee na en tout cas li am ba la waa Pastef jamono ji di amala ndax ci diwaanu Thiès ak ci diwaanu Paris mobilisation kilifa yi ci la nekk waaye tamit ci loxol politiciens yi ak ñi nga xam ne ñooy média yi maanaam taskatu xabaar yi sëriñ bi nee na jàmmi réew mi ma ngi ci loxol kilifa diine yi journalistes yi ak politiciens yi na kenn ku nekk def jàmm ngir nag réew mi mën a am jàmm yéen a kaay gi de le quotidien yor yor nee na en tout cas am ba des sal Ousmane Sonko jamono ji song yi nga xam ne ñoo ngi ko koy song ma ngi mel ni tulleeg male ndax nag du Amadou Ba premier ministre bi moo nekk ginnaawa ndax fan yi ñu génn gis nañu taxawaay bi nga xam ne mbër mi di sita amee na ko Cheikh Yérim Seck ak livre bi ak Mola Morgan ma nekk yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñu yaa Pastef ndax dinañu bokk ci élection présidentielle ab laaj la Sud Quotidien nee na Pastef essan bay yéenekaay gi di critique nee lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak bi nga xam ne moom lañ leen war a atte ca chambre criminelle ndax duñ ko def ab audience publique loole la critique yéenekaay xëy di laaj yéenekaay gi di Walfadjri xëy di ñu xibaar naan ñu en bari ci réew mi ànduñu lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat waaye tamit ci biir benn bokk yaakaar maanaam tasaaroo mën ama bu loolee lépp weesu nag askan wi nga xam ne jamono ji dund gi dafa metti ba maara détaillé loolee moo tax journal bi wal fajiri nee na ñetteelu candidature Macky Sall loolee mën naa nekk risque bu rëy ci réew mi yéen a kaay gi di leen fo naan train express régional bi France ko moom wala Sénégal moo ko moom loolee la boo xam ne gouvernement bu Sénégal ñoom andi nañu si ay tonto nee nañu terre moo ko moom à cent pour cent bi ko Sénégal moomee ba pare daf koo daal di jébbal ñi nga xam ñooy waa SETER ngir nag ñu daal di koy exploité yéen kaay gi de la Tribune Abdou Ndéné Sall mi xam ne mooy nekk directeur général bu SETER moom nag jéem na yey askanu Sénégal waaye yeyul kenn maanaam convaincreul kenn li am ba des la moom Abdou Ndéné Sall nee na Sénégal am na contrat bu yees bu mu signé ak ñi nga xam ne ñooy waa SETER lu ëpp nag cinquante millions yoo xam ne ñaari directeurs yi moom la ñuy fayee ko journal bi nee na loolee doy na war yéen kaay gi nee na nag ñoo ngi wax ne français yi ñoo ko moom ñi ko mooma waaye nag journal cas kàcc yu rëy la ci état bu Sénégal kàcc yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy yóbbu ñu diwaanu Touba ca marché Ocass ak lakk gu metti gi nga xam ne moo fa am matériel yu bari moo fa yàqu yéen a kaay gi de la sa xëy di ko dëggal nee na ay téeméeri téeméeri kantina yoo xam ne dafa tàkk lu toll si juróom-ñaar fukk ci magasin yoo xam ne def na ab dooma journal bi du l'Observateur nee na scandale sexuel bu garaaw bu doy war bu yéeme moo am ci diwaanu Mbuura ab jàngalekat ak koo xam ne dafa bokk ci association parents d'élèves ñëw sëgg ci benn élève bu góor bu am fukki at ci salle de Les Échos ak Libération xëy du ñu xibaar naan ñoo am na ñeent ancien militaires yoo xam ne teg nañu leen loxo ñeenti ancien militaires yi ñoom dañu doon wër ñi nga xam ne ñooy prostitué yi dugg ci seen appartement yi di nangu li ñu yore ba pare di leen di violer ñeent ñi teg nañu leen loxo ndax ñeent ñi dañu doon xool ci internet bi annonce yi nga xam ne jigéen ñiy jaay seen bopp yi ñoo ngi koy defa bu ñu fa jëlee ay numéro téléphone nag woo leen fexe ba dem ci seen appartement yi ne leen ñun ay takk der lañu wan leen ay carte nangu li nga xam ne moom la ñu yore ci xaalis ak ba pare daal leen di tëddee ñeent ñi teg nañu leen